yal nañu musal ci jàngoro bi ak jàngoro bu mu mën a doon jëlal ñu ko fi jaaxal na àdduna waaye jaaxalu ko ndax wa ma zalika ala allahi bi azizin yal nañ ko fi jëlal macha allah xam ngeen ni ñu ngi yéen seen saar bu solo bii di suratul xadiid biñ fi mujj amoon nañ ci quinze verset muy fukki aaya ak juróom te ñu war a jël seizième verset muy fukkeelu aaya ak juróom benn ci seen saar di suratul xadiid tey fi ñuy jëlee ñuy wax ni saxaaba yi jamono bi nga xamante ni toxu nañu ma madinatul munawwara dañu am benn jamono jamono boo xamante ni neexaayu dund gi daf leen a jàpp ba daanaka dañ doon xaw a dugg sax nag ci ay fo borom bi subhanahu wa taala recadré waat leen indiwaat leen tegaat leen ci yoon loolu suñu borom moo ko sañ yàlla moom bëggul jullit di dérailler bëggul jullit di wàcc yoon déedéet suñu borom bëggul loolu mu wax ak ñoom ni leen moo tax Abdullahi ibnu Mas'ud nee na suñu diggante bi ñu wommatoo dugg ci lislaam ak bi ñuy yedde yedd yi daal daanaka ñeenti at moo fi dox ginnaaw ba ñu nekkul lu yàgg ñu yedduñu yeddu wu rëy borom bi ni alam yani lilladina amanu an taxshaa qulubuhum li dikrillah yàlla nee na ndax dafa jotul ci gaa ñi nga xamante ni nee nañu dañoo gëm yàlla xanaa dafa jotul an taxshaa qulubuhum li dikrillah seen xol yi ragal nooy ngir lan di tudd yàlla ak di fàttaliku yàlla aka ah, kay jot na yàlla bëggul nit di yàq tempsam ci lumu mu xamul bëggul loolu kon ndax dafa jotul ci jullit yi ñu jéem a nooyal seen xol yii jéem koo def ci xol yi ak ragal yàlla ba loolu fees ci dell ba seen digganteeg seen boroom ñu ci tiit di ko ragal gis nga jullit war na yëg ni xolam ñemewul yàlla jullit dafa war a yëg ni xolam ñemewul yàlla parce lu nit di def rek ci xol ba la jógee pour mu mën ko def sa xol bu ragale yàlla moo tax boo wéetee wéttali sa borom sa xol bu ragale yàlla mooy tax bu julli jotee mu commandé cër yi ci des yëpp ni leen jóg leen ni làmmiñ liqaamal ni tànk jógal ni loxo jógal sa cër yépp dajaloo mu ni leen dama bëgg yow bakkan yow jë yéen ñoo ñëpp yéen ñëpp ànd leen wommatu ngir suma borom ndax dama yëg man xol ni nangu na gis nga bu nanguwul même boo jullee du baax moo tax yàlla di ko wax ca naafiq ya naan ñoom day wa ida qaamu ila salaati qaamu kusaala yuraa'uuna annaasa wala yazkuruuna allaha illa qalila mu ni suñu jógee ni dañuy julli dañuy jog fekk ni ñu tayal lañu ñu tayal lañu waaw nee na dañuy rek ci bëtu nit ñi waaye du ñu tudd yàlla lu bari du ñu fàttaliku yàlla te dafa jot nag alam yani lilladina amanu an taxshaa qulubuhum li dikrillah ba jot ñu fattaliku si ñu boroom bu baax a baax baax waare yi ñuy waare it dafa jot mu dugg ci ñun loolu beneen mbir la nit su fekkente ni xolam nooyul xolam nanguwul suñu koy waar du nangu du nangu day bañ ñoo xam ni ba léegi du ñu nangu ku leen waar seen xol moo nanguwul mu ni wa ma nazala min al xaq ak dafa jaadu seen xol nangu li nga xamante ni moo wàcc tukkee ci aji dëgg ji di yàlla waaye li wàccit di alquran di dëggit nee na jaadu na seen xol nangu loolu kon alxaq bi mufassiruna yenn yi dañ koy firi borom bi alxaq huwa allah ni li jóge ca aji dëggu ja di borom bi subhanahu wa waaye ñenn ñi di ko firi li nga xamante ni mooy alquran tey dëgg di waxu yàlla it nee na jaadu na loolu xol yi nooy ci nag dëgg yàlla xol yi bu ñuy xalaat war na nangu nag xam ni wax dëgg yàlla war nañu nangul yàlla waaye jaadu na it nag ñu nangul alquran ñu nangu ni wax yàlla alquran ji wax yàlla mu ni wala yakunu bu ñu mel ni kalladina utul kitaaba min qabl ñi nga xamante ni joxoon nañ leen téere te ñu jiitu woon fi muy yahud yeeg yi ñoom fi la ñu nekkoon yahud yi yàlla yónni ci ñoom yont yàlla Muusa nasaraan yi yàlla yónni ci ñoom yont yàlla Isa nee na loolu di leen waar ñooñu di leen waar ma jox leen i téere tawraat ñëw injil ñëw yooyu yépp indi nañ ko ngir delloo leen seen boroom nee na ñu dem ba si yàgg nag fa taala alayhimul amadu ñu toog bët ba yàgg diggante bi yàgg lool ñu toog diggante bu yàgg boo xamante ni boobu yonent yi dem nañu bu yonent yàlla Moussa dem na yonent yàlla Isa dem na muy fatra boobu nee ci diggante boobu ñu toog gisaatuñu lenn lu ñëw rek seeni xol jaare fa wow fa xasat xulubuhum nee na diggante ba dafa yàgg rek seen xol wow loolu loo cee dégg mooy ñun ñi bi fi yonent bi alayhi salaatu léegi bi muy dem xam na ni mu ngi dem te xam na ni yonent dootul ñëw ci ginnaawam moo tax mu bàyyi ñoog lu leer ne bu ngeen ci jàppee du ngeen réer muy sama téere muy téere yàlla bi ak sama sunna alquran waaye xalifa daf daan wax rek mooy li ma leen di wax nee na dëgg gu dëgg gu réer ci pénc ci suba ba ngoon ñu koy wër te gisuñu ko borom barke wala ku ñu rus la dëgg gi dal ci kawam te ñemewuñ ko ko wax nee na waaye bu ubbee alxuraan alxuraan wax ko boppam bu ubbee alxuraan alxuraan dina ko wax li ko nit ñi ñemewu la wax moom borom barke boobu mu kon yàggaay bi nga xamante ni toog nañu diir gisuñu dara moo waral loolu kon loolu daf ñuy dal am ñoo xam fi ne toog bi ñu toog diggante yi bii gisuñu yonent te yonent waratu la ñëw ci ginnaaw loolu moo wowal seen xol fa qasat qulubuhum seen xol yi wow koŋ te xolub julit dafa war a moytu muy wow de xol boo yëgee ni yow suñu lay waar waar bi du la dugg rek yëgal ni sa xol am na problème nga xam ne yow sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum laa yuminuun ñoom nga waar leen ak nga bañ leen a waar yam du ñu waaru hmm, loolu baaxul loolu bu lay dal yaa ngi yëg ni war nga yëg ni am na feebar bu bon bu lay dugg mooy xol ak sa xol a ngi commencé di waw di dëgër waaw dem ba mel ni kel xijaara te yàlla ngi koy wax ne am na ñoo xamante ni seen xol yi comme xeer ne dafa si yàgg mu ne xeer sax a tane ndax xeer yenn saa yi ragal yàlla jàpp ko ndox génn ci waaye am na ñoo xam ni dara yëngalu leen dara dañu mel ni oto bu blindé te borom bi subhanahu wa di wax naan fa dakkir innama anta muzakkir lasta alayhi bi musaytir xam na ni am na ñoo xam ni ñoom ñoo oto bu leen dee yem xeer mënul ci ñoom dara kon waarit du man ci ñoom dara bu ni kon fa bu xulubuhum ñoom de seen xol yi dafa wow koŋ ba lépp lu yàlla bëgg ñoom du ñu bëgg lool waaw seen xol moo nangootul def lu baax nee na loolu moo daloon ñi ñu joxoon téere te ñu jiitu woon fi muy yahudi ak nasaraan yi mu ni yéen jullit yi nag moytu leen a noonu waaw mu ne wa kathiru minhum fasiqun nee na ñi ëpp ci ñoom ñooñu de ñooñ téere ñooñu ñi ci ëpp ay kàccoor lañu ñu génn topp lañu ndax ba ñu sonnee fa nabadu wara zuhurim la la yàlla wax ñoom la ñu sànni seen téere ca ginnaaw yi ginnaaw kon kenn mënatuleen a waar ba ñu waaru ndax seeni xol moo wow ba mu woowee la mu jur ci ñoom mooy la ëpp ci ñoom dañu mujj seeni xol dee ba mu dee kenn mënatuleen a waar ba ñu waaru borom bi pare ci loolu nag nii i'lamu anna allaha yuxyi al arda ba'da ay bu yéemee ngi si yàlla daf lay wax waxi nit ñoo xamante ni seeni xol nooyul seen xol nangulul borom bi seen xol bu déggee yàlla du lool du jeexital ci ñoom wa iza tuliyat alayhim ayatu zaadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun loolu la yàlla taggee julli ni mooy ni nga xamante ni bu ñu déggee yàlla rek wajilat qulubuhum seen xol yi day yëngu suñu déggee ñu tudd yàlla da ngay yëg ni ñoom seen xol yi day yëggu dañ ko yëg waaye boo demee nag yow ba yàlla dootul yëngal sa xol waaye leneen wala ñeneen ñooy yëngal sa xol vérifier sa bopp xam ne yaa ngi am problème de waaw ah, yaa ngi am problème te nag li problème bi nga am mooy sa xol moo dee ci yàlla sa xol moo dee ci yàlla am ñoo xam ni yàlla jaralu leen ñaari dërëm parce que seen xol moo dee ci yàlla nayuñu sax de nayuñu mais dañu nay dañu ci li ñu nay jëm mooy ci yoonu yàlla mais am na ñoo xam ne caaxaan moo leen jaralul dërëm ñoom seen xol moo wow ci ni du dem ci caaxaan kon kenn mënu leen caa yóbbu yàlla ñu yàlla boole nag ci ñi nga xam ne seen xol day nangul borom bi subhanahu wa taala mu ni nag xol day bu deewee xol bu deewee nee manees na koo dekkalaat ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa ni yëg leen ni xol day day day xomaag comme ni weñ di xomaag yi saxaaba yi nag buñu masaana dégg lu leen jaaxal dañ koy laaj ni xol day xomaag comme ni weñ di xomaag yi ñu ko waaw su loolu amee lan mooy dindi loolu yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam suñu xol yi bu xomaagee ñu bëgg dindi xomaat xomaat googu nu ñuy def mën a ñaar rek qiraatul quran wa dhikrul mawt yonent bi nee na xol bu xomaat ñaar rek a ko mën a dindi xomaat xomaat googu mooy di jàng alquran ak di fàttaliku dee jàng alquran nag bi tadabburi waaw waxul jàng alquran rek de jàng alquran bu ànd di ko di di seetantal li ngay jàng afala yatadabbaruuna alquran am ala qulubin aqfaluha yàlla nee na xanaa gars yi dañ dul settantal alquran wala seen xol yi dafa am ngomb lu ko tëj dafa am cadenas bu ñu ci def ba tëj ko mu kon jàng alquran bu ànd ak tadabbur dina dimbali nit ki ba xomaag xomaag goog deñ beneen bi mooy fàttaliku dee waaw waaw ngoog nee na ko yàgg fàttaliku rek de xam sa borom na ko yàgg fàttaliku dee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne woon na bàyyil naa leen fi ñaar waxkat bi dul noppi ak jëfkat bi dul wax ko laajee ñaar yooyu mooy lan mu ni waxkat bi dul noppi ba mukk mooy alquran jëfkat bi dul wax ba mukk tey jëf li muy jëf rek mooy dee waaw waaw afna alquruna wa afna kulla di umrin kadalika almawtu yufni kulla ma fiha wallaay bari na maas yu fi jóge moo leen fi jële koo ne ana sa baay mun la mu nga fa sa baay ana baay mu nga fa ana sa baayu baay danaan laa new fa pour ma bañ a exagérer waaye ma la sax lool waaye am na ñoo xam ne boo leen ne ana sa baay sax dan naan la wuy jëna borom ana sa sa ndey wuy jëna borom yi soriwul dara yooyu am na mu ni nag loolu it dina tax sa xool xomat xomat gi deñ saa yi rek nga dem ci armeel yi xool gaa yi xool ñi faatu waaye ñii lan la ñu def yàlla ba tax yàlla tëral leen fi man lan laa defal yàlla ba yàlla bàyyi ma ci kaw suuf dana di koo xalaat dina la dimbali mu ni i'lamu xam leen ni anna allaha nekk yàlla yuxyil arda mooy dekkal suuf baada mawtiha ginnaaw bu deewee kon yàlla moom di dekkal suuf ginnaaw bu deewee mooy dekkal xol ginnaaw bu xol deewee waaw nga amradul qulub dafa am feebari xol bu la dalee nag da ngay gaaw faji ko soo ko fajiwul day rey sa xol te bu ko reyee nag problème la mën nga am nag ndimbalu yàlla sa xol dee yàlla dimbaliwaat la dekkalaatal la ko moo tax mun la i'lamu xam leen ni anna allah naka yàlla yuxyil arda mooy dekkal suuf baada mawtiha ginnaaw su su deewee noor bi bu demee ba dinañ toll ci noor foo xamante ni leen lépp luy nduroo gàncax doo ko gis àll bi day wow koŋ suuf si wow koŋ koŋ koŋ waaye yàlla day jékki-jékki rek su bëggee dekkalaat su soosu day indi ndox su indee ndox baykat yi xëy kenn ku dem jiw yi jiw yi la nga war a ji borom gerte jóg borom dugub ñëw borom ñebbe ñëw borom borom borom kenn ku ne ji bu toogee tuuti su soosu dee woon day dekki ñu gis mu commencé di verte fi nga daan romb ci àll bi di gis ni doo fa gis dara ndax lépp a dee woon léegi da nga fay romb lépp verte lépp verte waaye ñun ni ñu koy vertale amul njëriñ ñun lu ñuy vertele suñuy àll amul njëriñ imaginer rek imaginer yow da ngay dépare Thiès ba Dakar wala nga dépare Diourbel ba Dakar ci yoon wi doo fa gis benn garab goo xamante ni war nga soxla rek loo war a mën a lekk ba am ko fa ay ñax rek lu àll lu mu verte verte ay ñax kese ngay gis de ñooy nekk gauche ñooy nekk droite moo tax benn mag waxoon na ko mu ni bu yeboo ñuy ñaan jàmm ni Côte ba mu takkee nit mën na daw ay kilomètres yi kilomètres mën na daw des centaines de kilomètres ngir mucc ci ay wi waaye fi muy romb yëpp dina fa gis garab yu mu dunde mënuñu nag booy daw ci ay xeer dong gay gis ay xeer kese parce que exploité wu suñu suuf mu ne nag yàlla de mooy dekkal suuf ginnaaw ba mu deewee mu ne xat bayyannaa lakumul ayat yàlla nee na leeralal naa leen aaya yi waaw neen nag ni muy dekkale suuf noonu la mën a dekkale xolit nag waaw nga bu lay wax yi toujours da lay wax bari dina sax lu mu ko wax ni la wa kadalika nushur nii ma dekkale suuf si noon laa leen di dekkale ginnaaw su ngeen faatoo ba tëdd seen bàmmeel la ma neex bis dina ñëw ma yee leen xufaatan uraatan urlan ngeen jóg fandaañu war a daje seen boroom nee na loolu day am mu ne xat bayyan naa leeral neen leeral nañ lakum ñeel leen al ayaati ay yëpp laallakum taqiluna ndax ngeen xelu nag yàlla suy leeral aayaam yi dafa bëgg ñun ñu ànd ak suñum xel moo tax mu ni laallakum taqilun yàlla dafa bëgg ñu xelu di jëfandikoo suñum xel waaw loolu lay xaar ñun mu ni innal musaddiqina gis nga yàlla dafay waxal borom xel yi inna fi dalika la ibra waaw li waaye toujours day wax rek li ulil albaab borom xel yi xel li li qawmi yaqiluuna ñi nga xamante ni dañuy jëfandikoo seen xel ñooñu la yàlla di waxal borom bi nee na ñi nga xamante ni dañuy saraxe tey ay góor wal musaddiqaat ak ñi nga xamante ne dañuy saraxe tey ay jigéen wa aqradu llaha te ñu lebal yàlla qardan bor xasanan bu rafet bor bu rafet nit ñu yàlla binde noonu ñoom dañu tàmm di saraxe di joxe euh, bu ñu joxe du ñu jox jëmm ji ñu jàkkaar lool waaye suñu boroom la ñuy jox moo tax sayyidatna Aïcha ndeysaan bu daan saraxe bu yoroon fukki dërëm di ko saraxe sax Pape Samba bala mu koo saraxe day jël parfum def ci su ko defee waa sidna lii moom loo ci jublu mun dama xam ni teguma ko ci loxo ki koy jël waaye ci loxo yàlla laa koy teg te loxo yàlla bëgguma cee teg lu amul xet gu neex mu ni kon ñi nga xamante ni dañuy saraxe tey góor ak ñi nga xamante ni dañuy saraxe tey jigéen mooy di joxe seen alal tey lebal yàlla nag lebal bu rafet yàlla mënta leb de daa mën a fay bor rek ñemewul bor waaw du ñeme leb rek moo ko tax di leb bu naan la man dal ladi yuqridu llaha qardan xasana ana kenn ci yéen mooy lebal yàlla yàlla bu lay leb dalaa bëgg teral moo tax nag soo koy lebal lebal ko lebal gën a rafet lebal gën a rafet waaw soo soo gisee waaye yàlla buy dox toll ci jamono xiif soo koy jox muy lekk jox ko lekk gu doy soo koy jox muy naan jox ko mu naan soo koy dimbali ci koppar dimbalee ko lu ko lu ko mën a dimbali soo koy dimbali ci yére seetal yére yu baax nga jox yépp de ko def nettali woon naa leen fii xadis su yonent bi ñett ñi nga xam ne yowmal qiyaam kenn ki daan aka neexoon mu bees kenn ki ni aka neexoon mu mat kenn ki ni aka neexoon mu sori bañ ko laajee yonent bi mu ni borom lu bees li dafa am ku mas a ñëw këram di saraxu yére ndax amul lu mu sol mu jël benn yéree boo xam ne ci vali armoire am na ni gis na ko sox sol te programme ko woon sol sax nag ndax pare woon na ci yére boobu mu sarax ko boobu waaye ki mu ko sarax daf ko soxla ñu jox ko àjjana yowmal qiyaam mu ne waaw man àjjana ju rëy ji lu ma def ba am ko ñun ko yaa ngi fàttaliku mbub ma nga saraxe woon mun ko moo ko jox kii moom ab faalel la wala ñangeen jël miisu mburu dagg ko juróom-ñaari dagg am kuy ñëw di yalwaan mu jël benn bi jox ko ah waaw jàppal ci loolu bañ ko joxee aj fekki ni kam ko jox yittewu na ko bañ ko joxee ajjana war nu ma def ba dem ajjana aj am ajjana ju tol nii lu ma defal sama borom ñu ko fàttali ka mburu ba nga joxee mu ne waa mu ne waa ñaara ngoog ñetteel bi dañ ko jox ajjana waaw lu ma def ba ajjana bi mu ne yaa ngi fàttaliku ni sa ak jàkke ji ñoo jàkkaarloo woon ma mu ne fu noddkat bi masaana nodd rek da ngay génn dem julli jàkka ja kon boroom ak a neexoon mu bees ñëw ni man de sëgam àjjana ji yére bu màgget ba ma joxe woon moo ma ko jox su ma joxe woon yére bu bees kon ban àjjana laay am boroom daggu daggu mburu soosa it ni ak a neexoon mu mat ak a neexoon muy miisu mburu daggit su mburu su ndaw si ma saraxe jural ma àjjana ji waaw bu doon miisu mburu laa saraxe lu may am borom jàkka ja ni aka neexoon yàlla yi taxu kaana ba ay dan jàkka ji sori jàkka ju jàkkaarloog sama kër noddu ma dugg ko kay yomb la kon bu jàkka ji sori woon mbay dox ay pas yu bari di dem ca jàkka ja di doxaat ay paa di ñibbisi ban àjjana lay am ndeysaan ma ziyaare suma mbokk Ibrahima si ziyaare tabaarakallah muy sama njaatige yooyu ca France ak Fatima ay dara ziyaare njaboot gi yëpp wallaay wallaay yowmal qiyaam day bu ko yàlla fayee jéego yu muy def ngir julli ji fi mu dëkk ak fa muy jullee sept kilomètres la juróom-ñaari kilomètres waaye e, waxtu yëpp rek te jàkk ji la koy jullee waaw waaw te jàkk ji la koy jullee ne nii rek mu taal oto bi dem benn yoon ñun nag dañuy ñëw ba ci wetu jàkka ji jàkka ji di nodd ñuy salaatu ñu xëccaat suñu mbàjj di nelaw waa ji dee li ko may loolu la kon lu ma jublu ci loolu mooy ñooñu dañu lebal yàlla wa aqradu llaha qardan xasanan lebal yàlla lebal wu rafet mooy da nga lebal ci jaamam yoo xamante ni ba nga leen di jox la nga leen di jox ñoom dañ ko soxla woon mun ñooñu bu leen yàlla di fay yu yudaaf lahum wa lahum ajrun karim yàlla nee na non seulement dinaa ba ma leen di fay yudaafu lahum dama leen di fulal parce que yàlla loolu la am nit ku ne li nga am ngay may da di fulal soog leen fay waaye walahum ajrun karim neeneen dinañ am fayu yàlla bu tedd fay gu tedd la ji am ajrun karimun walahum ajrun karimun neeneen dinañ am fay de non seulement dinañ am fay waaye fay gu tedd mooy nga yëg ni yow lii ñu la jox wax dëgg yàlla liggéey yoo ni toll de loolu dafa am solo de ñoom dañuy yëg noolu yëg ni li leen yàlla faye ñoom bokkul ak lañ ko lebaloon xam nga nit ku nekk ci problème jaaxle lool ah xëy na situation am demeewul noonu ñëw diis la soxlaam ah mu doon dimbali moom mu mënoon dimbali rek ma daal problème mu cinq mille bu ma joxe dépense laa am tay nga jox ko ko ci sutura jox ko joxi joxin wu rafet mu dem ba jekk mu jekkee ñëw ah sa waay fàtte nga ni lebaloon nga ma fi cinq mille bu ko ma ko ndax bor la woon bu tegu sama kaw yàlla dogal na nag jafe-jafe yama nekkoon jóge naa ca moo tax ma ñëw di la fay defe naa cinq mille bii nga ma joxoon mo mu jëlaat quarante cinq mille teg ñu ne lii yëpp maa la ko may kooku mooy dalaa fulal li mu lay fay ba pare jox la ko muy fay bu rafeta rafet bu tedd nee na loolu day am mu ni walladina amanu gaa ñi nga xamante ni dañoo gëm billaahi ci yàlla wa rusulihi ak i yàlla saa yuy wax day wax du wax rek ak yonentam waaye ak ay yonentam lay wax loolu neex naa expliquer mooy jour damay wax ni képp boo weddee benn benn yonent weddi nga yëpp moo tax yàlla wa rusulihi lay wax waaw laa nufarriqu bayna ahadin mu rusuli loolu dafa war ci jullit muy war ne ni ñun duñu tàqale yonent yi ñun nag nee naa leen ñun ñu ngi koy dund ñun jullit ñu ngi ñaan ñëpp dund ko ak ñun bañ bañ di tàqale parce que ñun da ngay ñëw ci suñu kër yi tudd yonente boo xalaat ci àdduna am na ci kër jullit yi yooyu ñëw Moussa Moussa wuyu la Isa Ibrahima Yunus waaw yooyu yëpp da koy wër Yuusuf Yaquba waaw waaw yooyu yëpp am na ci suñu kër yi kon li muy wane mooy mooy mooy rafetal mu ne nag gaa yi nga xam ni dañoo gëm yàlla te gëm yonent yi gëm ne yonent yi ñoo leen di wan ni ñu jaamoo yàlla ñu ni ulaayka humu siddiquuna nee na ñooñu mooy ñi dëggu wa shuhadaa ñooy doon ay seede it te ñenn ñi ñenn ñi ni wa shuhadaa ay martir lañ leen di jàppe inda rabbihim fa seen borom nag ñoo xam ni shuhadaa lañ ko jële indi ko ci wa kadalika jaalnaakum ummatan wasatan li takunu shuhadaa ala nnas wa yakuna rasula alaykum shahida kon gaa ñi ragal yàlla gëm yàlla gëm dafa am solo gëm yàlla gëm yonent yi <clears throat> gëm ni yàllaa leen yónni nee na ñoo ñoo ñi dëggu as-siddiquna yàlla nañ ci yàlla boole daraja bu kawe la ca kanamu borom bokk ci mina siddiqina ñiy dëggal ñi dëggu tey dëggal nee na wa daa bokk ci ñi nga xamante ni ñoom de ay seede lañuy doon ci yeneen xeet yi yowmal qiyaama yonent yàlla nuux bu yowmal qiyaam yi yàlla da koy woo woo aw xeetam waaw yéen noox ndax la ma la yónni woon defe yoon nga ko mu ne waaw dem naa de junni at bu manqué juróom fukki at ma ne fa di waare woo nitam yow waaye yéen noox ñëwoon na ñu ne ko musul ñëw su fee ñëw loolu dafa yéem waa noox yow lan mooy sa seede nii ñëw nga mu joxoñ xeetu sayidna muhammad ne laajal ñee suñu boroom laaj xeetu sayidna muhammad ndax yéen yéenay seede ni noox mi demoon na joxe joxe li ma ko jox ñun ko waaw waaw waaye ban preuve moo leen wan loolu te bokkulee leen ak noox jamono ñun xanaa inna arsalna nuuxan ila qawmihi moo ñu xamal ni noox demoon na ndax xam na ni yow doo wax lu dul dëgg te wax nga ci téere bi ni yónni woon nga noox ci ay nitam mu dem wa qaala nooxun judul jeex a ngi ci wa qaala nuuxun judul jeex a ngi ci loolay wane ni kon dem nga mu ñoom dey kon ngay seede la ñuy doon te seen kanamu boroom waaye ñenn ñi nag ni dañuy am darajatu shahada daraja dooni martir seen kanam boroom lahum ajruhum nee dañu am seen fay fay wa nuuruhum ak seenug leer muy beneen mbir yàlla neen non seulement dinaa leen fay waaye dinaa leen mayug leer waaw dinañ am fay fay yàlla ba pare am ak leer mu ne walladina kafaru gaa ñi nga xam nag dañoom dañoo weddi yàlla wa kaddabu bi ayatina tey ñu baal ma ñuy fen loo samay aaya ay yàlla yi ñu naan du dëgg loolu garaaw la ay yàlla yi nga xool ba mu neex la ngeen li yàlla yàlla lii ñu wax ni yàlla ko yii yëpp du dëgg ay alxuraan yi yëpp ay tappale la du dara nee na day ulaayka asxaabul jahim nee ñooñu ñooy gaa yi safara yàlla ci yàlla musal mbokk jullit yi nee na ulaayika ñii day asxaabul jaxiim ñooy ñoñ safara yàlla nañ yàlla musal ci ñooñu yàlla bu ñu bokk ci ñooñ safara waaye nañu bokk ci min alsiddiqina walshuhada walsalihin ndax wa xasanu ulaayika rafiqan yàlla nañ yàlla boole ca ñooñu tafsir bi jeexul waaye waxtu yu ñu amoon jeex na teg leen seen baaraam foofu suñ ñëwee sof li ñu sasoon barke alquranul karim ñaan yàlla mu defool ñu dégg ak topp aqulu qawli hada واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله